ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala da ngeen di abonné fii ngeen jot leen vidéo ko lay jox ay tomb léeg-léeg ci dunduk Cheikh Mamadou Fadal mm-hmm. nga jàngatal ma ko waaw ndax euh, dafa mel ne bari na yoo xam ne jamono soxlan waat na ñu xool ko oustaz ndax boo seetloo bi fi euh, sëriñ bi di jóge sëriñ mm-hmm. Touba ci boppam bàyyi Cheikh Mamadou Moustapha mm-hmm. Cheikh Moustapha al Karim euh, am na ñetti ndénkaane yoo xam ne ñoroon na sëriñ bi lool waaw mën ngaa wax ne ci jamono yi sëriñ Fàllu ci la àgge benn bi da cee joxe woon ndigal yeneen ñaar yi da koo bindoon bu njëkk bi oustaz mooy jumaa ji Eh, dafa mel ne ci ak ayam la àgg mu jiite ko ubbi ko def yee ca war loolu man njàngan nga ñuy defal ci jumaa ji ci boppam njàngan mi mooy jamono ji ñuy toll ci di ko tabax mhm. toll ci di ko defar mhm. toll ci di ko àggale mhm. di door a jóge ci guerre mondiale du woon lu yomb defe naa deuxième guerre mondiale la peut waaw du woon lu yomb waaye taxaw bi mu ci taxawoon ba ba doxe ca woote màggal gi taxaw bu rëy rëy la woon bu fees sëñ Mbàkke dëgg la ndax xaw xaw ma Afrique gii day mhm. waaye valeur u ji day boo ko ci dugalee waaw surtout sax nag ci jamono jooja oustaz surtout ci jamono jooja mhm. nga taxaw fa tey nga yëg ne ay mhm. milliards yi milliards moo ci nekk du dëgg te kat wutiwuñu woon budget bitim réew déedéet wutuñ fenn financement wutuñ wàllu <laughs> loolu beneen affaire la. Mhm. loolu suñu fàlloo ko def rahmatullahi alayhi wa anhu ca mhm. njataayam ca xilaafaam. Mhm. Uh-huh. am na solo oustaz beneen bi ci des mooy eh, xam nga bi Serigne Touba jógee 1927. 1928 rek ci la sëñ Fallou demoon ajali ko màkk. waaw te fekkoon Serigne bi yéene woon ko lool. léeg-léeg ma dégg ci sa auditeurs yi kenn woole soppe yi ne la damaa bëggoon a ajali sama yaay màkk waaw nga ne ko wutal ku mas aji mu ajal ko waaw moom ci boppam ba muy dem mu tànn mbooloo mu bari ñoo xam ne ñëpp mas nañoo aji màkk waaw ànd ak ñoom dem aji te sëriñ bi ci boppam moo bindoon wax ne wax wala si ay xa gis mi an siyaaratihi laakin la lahu kal xal bi sawaaru maanaam wane ne aj màkk daal moom lu ma bëgg la waaye nag xam nga contexte yi mu nekkoon résidence surveillée yi ci ajo yooyu oustaz gis bi réy jooju laa bëgg nga décortiquer waaw moo di euh, ci jëfi suñ fàllu mhm. ajam googu dañ koy fàttaliku mhm. ba bàyyi ñu sàngoo suuf ndax dem nga demul moom dong dem nga jafe won na mhm. Mhm. booba def na bata ñu démé waaw bata ñu démé wër wi ngay démé mhm. ay wër ngay am wallahi jaar baytul maqdis door na nga dem wayé téwul mu and ak mbooloo moom andal and ak nit ñam andal di jëmmal loolu nga xamné euh sëriñ bi mam si dal ta anhu mom la ñon ci ñam ya qalbi law fi al jismi takrar li annahu lil huda wan nur jarra tabarakallah mom mom mom mom te ci raayam nga am solo googu donc loolu bu ko sëñ Fallou jëmmalee mm-hmm. jëmmale ko na mu ko jëmmalee mm-hmm. yemul ci boppam xanaa mut mm-hmm. ay nit yoo xam ne ca ci yoon wi ca xilaafa ga ay nit li qualité lañ yoo xam ne tabarakallah foo leen takk ci dimension weesu nan ko mhm. mu ànd ak ñoom jëf jëree jooju mhm. sëñ Mbàkke loolu àdduna dëkk bi ko fàtte mu ko béyam la xiyaamati réew mi du ko fàtte dëgg la radiyallahu taala anhu mhm. wa rahima am na solo am na solo oustaz yaa ngi waxtaan léegi ci mbirum daara ak surne daara yi nga xam ne moo ci aju xam nga du jumaa ji noppee la mu njëkk a def mooy taxawal ab jàngukaay waaw bi nga xamante ne mën nga ne ñi génn ci jamono jooju yëpp ci wàllu xam-xam ak yëpp foofu lañ jàng mu def ko ci biir jumaay Tuubaa ji fa la defoon eh, maanaam jàngale moomu moo wax la léegi ne la ñetti yëf yi nga xam ne sëriñ bi da koo dénkaane woon mhm. benn bi mu joxe ci ndigal ñaari ñu bind ko mhm. benn bi mooy li ma lay wax léegi ci aj màkka waaw bi ci def mooy bi mu waxee ne li Moustapha li banal xuduusu madrasatun mhm. ba ba bayit wa jeex noo ñu jàngatale taxawee ab jàngukaay solo mu am ci diggante sëriñ akub taalib waaw ndax su loolu amul su jàngukaay amul sëñ Mbàkke réer day am te dégg nga ca baytam wa wa ma nahaakum fa nahyuhu ila dalali yantami mm-hmm. bu leen tey jàng rek sànq na leen kon nag a Cheikh Mamadou Fadul mm-hmm. samp jumaa ji mm-hmm. dafay samp daara ci biir mel ni na ëshar meloon borom xam-xam di ci feeñe boo ci toogee tey euh, sëñ aas jaxate ba mu max la ñu génn ci jumaa ji da ngay gémmiñ ah ak niñ leen di jàngalee foofa mm-hmm. nga xam ne xam-xam boo soxla mm-hmm. boo ñëwee ma nga fa mm-hmm. bi ñu ñëwee ba def daara yi kaamil nga xam ne téere boo soxla boo ca demee ma nga fa loolu tax na ba pénc ma tey gis nga péncum jàng la dëgg la la nekk ci kàng ci tubaa nga xam ne bind nañu kaamil te duñu ko xool la ca nekk ci gone yu jigéen ñu bind kaamil la ca nekk ay woroomi xam-xam bu ñu demee rawdu rayaaxiin da ngay xool ne ca ne ci ay borom yi xam-xam ak yu mel noonu mm-hmm. Mm-hmm. te li ëpp ci ñoom bu buñ jaarul ca daar ji jaar ci loxol ku jaar ca daara jooja mm-hmm. loolu liggéey la bu rëy rëy am na solo sëñ Mbàkke bu amam solo boo xam ne bi ak Cheikh Mamadou Fadl moo ko taxaw woon xam naa yooyu yëpp euh, ñi nga xam ne ñooy dem ca Kazu Rajab danañ ca doyal macha allah ngeen